Patisen vous offre votre dolli arôme seen safar bi ngeen tàmmu di fësal cafka arôme ci bépp togg moo leen di ñaanal kooku jàmm. <laughs> domaki kërëm Më moj haritu gjë kërëm Aja Fe përë më nej Aja Aja No në në gjeke Aja maa ngi lay sant di la gërëm ndax bi Pathé génnee àddina ba tey yaa ngi ñu toppatoo yaa ngi toppatoo njaboot gi namuñu dara manqué wuñu dara. Hmm? ah loolu sama wareef la. Hmm. sa mag génn àdduna bàyyi la ak soxna ak njabootam su ma leen yoree rek war leen yor <laughs> loolu moom sama wareef la te fi nekk nii commencé guma dara <laughs> maa ah dinaa la yóbbu foo xam ne paate mosula faa yóbbu <laughs> eh, lenn rek moo ma ci jaaxal muy xale yi xale yi kese ñoom ma si jaaxal. jogoy xale yi nag bu leen bu ko def problème dañoo miinagul sa ndeewu papa rek dañoo miisagul waaye eh, bu ko def problème dégg nga bu ko def problème. waxtaan ak ñoom dafa war a neex nag. waxtaan ak ñoom. bu yoboo nga xam fan ngay fanaanati ci kër gi. eh simi sama yére waa duudu lu xew dama ne nga simi sama yére nga naa ma lan moo xew waaye yére bi yaa ko mayoon eh maa la ko mayoon delloo ma sama yére waa coow loolu lan la duudu ngóor simi sama yére nga naan ma ay yàlla dafa ma ndànk dafa ma ndànk simi sama yére waaw dafa ma ndànk wala dafa ma ndànk wala da ngay gàcc duudu yow lan la yow réew nga trop ah réew nga trop lan la père lenn la na simi sama yere te bu mu fanandati sama neeg xam nga luma ray xamal yaa ngi naan ko neeg mais bo fexé ma génnalal kër gi dégg nga li jabat la wax i maman jogoy Adja tëjal ma salamé man duma wax jabar ci tek baat sen yak na xalé bo dé bay mak ñom naka la sen bay di dé bay mak sen yaay mu jall sama ginaaw ngeen may jaay réewande pour lan lolu fan ngeen ko tek dina len xamal ne kër gi na gëño fi ne makoy tak nang ko xamal xalé point

papa sama paa ñun lay xaar de ñooñu foofu si suuf ñun lañu xaar hay hay hay hay hay hay lan la papa ngóor man ngay delloo reefaan man ngay man ngay delloo reefaan papa xëdd man ngay delloo reefaan papa xëdd man ngay delloo reefaan papa xëdd man ngóor man ay waay paate seen yàlla na dee waay ni yàgg ma ci xilaafa gi di waaw maa ngi nii de waaw duya waaw sama bulletin génn na de ah, dafa génn waaw amu ah, foo ko jëlee rek duudu nga mais wax ko sa papa moom day xiiral rek el capo <laughs> gis nga wax boobu nag laay bañ yow wax ko ko rek. nga lu ma bëgg. ma bulletin. ami yow ëppal nga de man ngay xool di ma wax ay waxu falsifié. du yow lan ngay def. eh ma def ko dafa tax yow nga def ko ma juste assez intelligent su ma ko defee war nañ ko mën a gëm. mais yow loolu sax ah, ka eh kaa ma waxal eh. <laughs> sax man ay ah, wax ko El Capo <laughs> Oui, maman. Faut pas pouvoir temps ak man. Hmm? C'était pour te rassurer. tey moom dama bëgg nga xam benn affaire mami sama doom yëpp yow yaa si Hmm? te bu fekkente ne nag duudu moo tax ngay wax xam nga duudu moom xale la te daf ma takk dafa ma yàpp sonal ma xam nga hmm? loolu moo tax ma nag moom ñu complice léegi nag complicité boobu mami dama bëgg man ak yow ñu am ko hmm? donc euh, dama bëgg bul am benn barrière sama diggante ak yow loolu ma bëgg wax faut pas hésiter d'accord D'accord, maman. Rousse naa sax. mais non. maman. <laughs> temps yëpp dama bëggoon waxtaan ak yow. mais je savais pas trop comment m'y prendre. mais non lan la. en fait euh, j'ai rencontré quelqu'un. Hmm. et mu xamal ma ne dafa bëgg nekk ak man. mais je ne ko balaa may jël benn décision il faut que ma waxtaan ak mes parents parler. tu as bien fait ni quoi pas mais si avec papa hmm? d'accord. d'accord. pas ak papa complice hein. ah tu as une bonne nouvelle. ah oui ah mami tu as une Avec D1 Décor, votre personnalité devient un style.